asalaamaaleykum euh, mbokk internet Sénégal yéen a ngi seen émission nay leer di dalal tey koo xamante ne kenn dootu ko présenté internet yi muy euh, Serigne Momar soxna Serigne Momar soxna nag euh, mu ngi nekk président du grand mouvement pour le développement du Sénégal di gunge Karim Wade pour élection 2024 yi nekkoon aussi ex coordonnateur bu réew mi nekkoon département de Kaolack dix à 2014 ginnaaw ba mu jógee ci loolu mu ngi bàyyi woon réew mii dem rejoindre ku ñuy wax euh, Pape Diop lool mu ngi ko defoon ci atub 2020 euh, ginnaaw loolu le 26 juin 2020 nag la créé mouvement bi ñu leen di wax ni mooy euh, mouvement pour le grand développement pour gunge Karim Wade ci élection yi 2024 yi donc moom tey la ñu dalal fii si Sénégal Serigne Momar ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum Thierno Malick maa ngi lay nuyu di nuyu waa Euh, Sénégal yëpp di leen jaajëfal ci di di leen remercier tamit ci invitation bi ngeen ma invité fii tey maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu képp koo xam ne mu ngi liggéey fii ci site bi nga xam ne site boo xam ne bu ràññee la ci biir Sénégal ak ci àddina. jërëjëf moom ak Soxna ñu tàmbali directement rek lan moo indi ngay soutenir euh, ku ñu naan Karim Wade. waaw soo gisee ma euh, toog xalaat ne am jàngat bu ma jàngat ci réew bi ak jàngat bu ma jàngat ci nga xam ne ci lider yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal parce que jàngat naa ko ak diir bu yàgg parce que comme ni nga ko waxee ginnaaw bu ma nekkee woon ci Idrissa Seck 2010 2012 euh, Pape Diop tàllaloon ma loxo ñëw la Latmingué ñu waxtaan ma ñu ànd liggéey ci élection euh, yi nga xam ne muy 2019 yi. Mm-hmm. élection présidentielle yi nga xam ne ñu bokkoon ci benn coalition. ak mm-hmm. élection législative yi. ñu mm-hmm. defoon ma. Euh, ci candidat départemental. Mhm. ci si député yi. ginnaaw bu ma ci jógee nag génn si dama créé sama mouvement comme ni nga ko waxee le 26 juin 2021. ci ci Sénégal yëpp nga xam ne mouvement national la. Euh, ma liggéey ci ñaari at mbaa at ak genn wàll boo xam ne ànduma kenn di liggéey ci développement di jàppale ak di jàppalanteeg samay militants ci ci développement ci réew mi. ci mhm. liggéey. Euh, bañ demee nag ba nga élection yi législative yi des si li nga xam ne euh, fukki fan moo ci des. Mhm. quinze de 10 à quinze jours. Mhm. ma def suma jàngat ci ci euh, ci ëtt politique bi gis ne Karim Meïssa Wade bi nga xam ne nekkoon na fi ministre nekk si tamit. nekk ministre chargé de la coopération. Mhm. yor fii li nga xam ne tamit euh, ci wàllu nguur si lu yaatoo yaatu. Mhm. nekk demandé woon tamit pour nekk candidat en 2012. Euh, mhm. ñu 2012 euh, yaakaar na. ñu recalé ko. 2019 ñu recalé ko. loolu ba ma ci demee gis ak situation réew mi nu mu mel. ak situation yi nga xam ne moo nekk ci réew mi ci terrain politique bi yëpp gis naa ne daal Karim Meïssa Wade mooy ki nga xam ne. moo mën a yóbbu Sénégal ëllëg génnee ko ci guutu gu mu nekk. Mhm. mais gisoo ni c'est un peu di jàppale koo xamante ne déjà newul ci réew mi kenn xamul ba xam dina ñëwam du ñëw saa su ne nga dégg ne dina ñëw du ñëw depuis deux mille dix neuf ba léegi coow loolu nekk fi euh, bien avant même deux mille dix neuf mais ba tey kenn mënu laa wax ne Karim Wade dina ñëw Sénégal. waaw jàppale boobu ma koy jàppale rek loolu mooy firndeel ne loolu rek nit ñu war nañ ci bàyyi xel ne. kooku doomu Sénégal la parce que man jàppale wu ma koo xam ne Guinée Bissau la dëkk. waaw mais doomu Sénégal bu nangootul ñëw. Sénégal non nangu ñëw Séné parce que Karim Wade waaj na fi bi parce que non est na parce que tamit xam nga aussi tamit gars yi bu ñuy waxtaan mais est-ce que réellement communiqué yooyu Karim moo koy moo koy bind. non moom moo koy bind parce que Karim nañ fu mu demee di bindu kon moo lay wax ne bëgg na ñëw Sénégal waaye nag pour mu ñëw Sénégal loolu moom ñëpp xam nañ parce que am na loo xam ne sax yow en tant que journaliste xam nga ne Karim ci boppam envisagé na woon ñëw en 2019 pour nekk candidat kon moo lay wane tamit képp ku bëgg a nekk candidat réew bëgg naa ñëw si réew ma parce que Karim Wade nu mu génnee réew mi ñi nga xam nañ ko protocole bu mu génnee réew mi ñi nga xam nañ ko nam toogee ci Qatar tamit xam nañ ne nekku ci en liberté totale boo xam ne war na mën a dugg ci réew mi génn bu ma génn am mouvement boo xam ne mu ngi tudd GMDS euh, am benn slogan slogan boo xam ne ñu ma tuddee ko gunge Karim Wade en 2024 loolu dama ciy woo Sénégal yi yëpp woo ci waa àdduna xam ne Karim Wade war nañ ko mën a gunge si ñëw bi kii ñib si ku nekk dañ lay gunge ma bëgg waa Qatar gunge ko mu ñib si waa Sénégal teeru ko est-ce que dina ñëw problème mooy est-ce que dina ñëw non bëgg ñëw loolu soo gisee ma génn sax yu bëri may génn mooy président Macky Sall si boppam mm-hmm. parce que war na ci mën a def ay jéego comme mm-hmm. projet protocole bi nga xam ne xalif général des mourides defoon na ko. Mhm. ci Masaalikul Jinaan. loolu ñëpp xamoon nañ ne euh, euh, am na lu ñu ciy undu. Mhm. Euh, yàlla def na protocole bi am na lu ko baare. Mhm. parce que amut amul suivi. mbaa su amee suivi tamit ki nga xam ne mooy président Macky Sall moo ko war a mottali. parce que def na ñaari mandat ci digganteeg moom ak ab président Abdoulaye Wade mu am ay situation yoo xam ne yu doy waar la foofu sax dama ciy profiter occasion pour ginnaaw mu ngi jeexal deuxième mandat am. te def na fukki at ci nguur gi te ci loxoom la jaar. na def le tout fexe ba nga xam ne toog ak président Abdoulaye waat ci nu mu gën a gaawee laaj ko bëgg-bëggam ci Sénégal laaj ko xalaatam ci Sénégal parce que keroog ba ñuy prêter serman président ab Abdoulaye Wade def ne ko. heure boo soxlaa xalaat mbaa lépp loo bëgg def ci réew mi soo ma laajee danaa ci def sa xalaat. loolu laa bëgg mu def si li nga xam ne mandat bi moo ci des parce que euh, mooy indi ëllëg woy a rafet ci réew mi. parce que diggante Senghor ak ab du Diouf. dafa rafet. diggante Abdou Diouf ak ab lay Wade dafa rafet ba nu ñu jógee ci réew mi kon rawatina diggante doom ak bàyyi nga xam ne daf ko wuutu. dafa war a rafet si balaay nguur gi di jeex. Euh, parce que mandat bi presque jeex na waaye xam naa ne euh, li nga xam ne mooy situation bi rek. président Macky Sall moom su ci defee ay jéego. te plus rapidement possible Karim Meïssa Wade dana ñëw si réew mi. waaw xam nga tey Karim Meïssa Wade dina ñëw ci réew mi gis nañ ne ñi koy laaj bari nañ bañ ko dalee laaj yàgg na. mais euh, li ci bizarre mooy fu jamono toll tey ci développement internet digitalisation bi na mu baree noonu mais boobu ba léegi tey mosoo gis Karim Wade def benn vidéo même bu nekkee 30 secondes wax sénégalais maa ngi fii di xeex pour ñibbi Sénégal dañ ma fi téye. waaw loolu nag ëmp na ma lool parce que man ba may tàllal loxo ki nga xam ne mooy euh, Karim Meïssa Wade mhm. jaaruma ci benn responsable politique. Mhm. comme nu ma duggee ci réew mi ba may mm-hmm. ñëw ci Idriss Seck jaaruma ci benn responsable bi mm-hmm. dama gisoon ne borom xam-xam la ci réew mi mm-hmm. war na mën a yore réew mi ma ñëw ci Pérou si saalum liggéeyal ko ba mu reconnaître ko tàllal ma loxo xamante ne man yebal fa ay kilifa ba may ñëw tamit ci ki nga xam ne mooy Karim Meïssa Wade mi amul benn responsable PDS mbaa benn responsable politique ci réew mi toog ak moom ne ko dama bugg a liggéey ki nga xam ne mooy Karim Meïssa Wade pour mu jokkale moom mbaa mu jokkale ma ak waa waaye dama xam ne ndaw la te ñun ndaw mooy tabax réew xam-xam ak xale yi ñooy tabax réew mi mhm. te xam naa ne Karim Meïssa Wade am na mhm. expérience boo xam ne am na xam-xam boo xam ne mhm. am na qualité boo xam ne mu ci moom ci leader yi ma gis ci Sénégal moo tax ba ma ciy ñëw tàggoowu ma ci am na ñu ma ci waxtaan ak ci ay conseillers na yoo xam ne ba may dem pour yëgal leen da nga ne Karim ndaw la moo tax nga koy soutenir mais Ousmane Sonko Thierno Bocoum ñoom ñëpp ay ndaw lañ mm, waaye expérience bi soo ko seetloo ci wàllu expérience yi ni ñu yoree réew Karim dafa bokk sax si réewu àddina bi ci ci yeneen continent sax dafay dafay dafay jàppale ñoo xam ne su lu mel ni Qatar. Mhm. ak lu mel ne na feneen ak feneen ñëpp xam nañ ne président Karim Meïssa am na relation internationale. Mhm. parce que yeneen réew yi sax yeneen njiitu réew yi sax. Mhm. lu jiitu moom mi ñëw Sénégal di jàppale baayam ci nguur gi. lu jiitu loolu mu ngi doon jàppale. am na ñu ko loon tàllal loxo ay ay ay occident euh, occidentaux yi. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen pays arabes yi ñëpp. buur yi di ko tàllal loxo pour si leen seen wàllu koom-koom ak si leneen ak leneen mu si jàppalante ñoom kon expérience boobu noonu amul benn leader fini si jamono yi ci guddi yi ñu toll bu am expérience si loolu parce que réew tamit dawul ne lépp liy doxal réew rek ci réew mi nga ko mën a jëlee il faut nga dem jéggaani te Karim yàgg nay am loolu yeneen réew yi puissance yi nga xam ne ñoo ëpp doole si àddina bi di ko tàllal loxo si xam-xamam ak ci xalaatam nga xam ne daf leen di gunge si seen réew yi sax pour moom gën a mën a développé kon candidat yooyu profil yi fi nekk yëpp ci Sénégal parce réew parce que Sonko jàmbaar la borom xam-xam la waaye dañ ne nit ki su la sutee rek ne ko yaay njool Ousmane Sonko ndaanaan la waaye nag Karim Wade dafa nekk ndaanaan ci biir ndaanaan yi parce que soo ko seetloo avant mi ñëw ci réew mi moom buur yeeg président de la république yi nekk ci àddina bi ñu bëri dañ doon jëflante moom ci wàllu xam-xam kon dama jàpp ne rek mooy candidat bi nga xam ne moo gën ci Sénégal Sénégal mën a nekkaat ci jàmm Sénégal mën a nekkaat ci eh, ci ci koom baykat yi eh, génn ci situation yi nekk euh, secteur informel bi la même chose ak ñeneen ak ñeneen la même chose parce que réew mi soxla na ndimbal xam nga tey Karim Wade même ñibbiseem ci Sénégal rek nekkul ñibbisi naa rek bokk naa élection mhm. ndax xam dañ ko épinglé

Abdoulaye Wade ak président Macky Sall. Mhm. nañ joxante loxo. doomam ñëw rakkam ñëw. Mhm. ginnaaw bëgg na ñëw ci réew mi nim seen nañ pour ñëw ci réew mi. Mhm. mu bokk si ñi nga xam ne ñooy contribuer ci li nga xam ne mooy jafe-jafe réew mi. man ko defaraat man ko yëgu. ëllëg koo xam ne dafa a yow jàpp ne Abdoulaye Wade ak Macky Sall réeroo nañ barki Dembo Ndiaye yàggul dara la ko Macky Sall tuddee stade fii stade Abdoulaye Wade. fii ci Diamniadio suñu stade bu bees. donc ku ñuy tuddee stade mu yebal foofu ay ndaw ñu ñëw teewal ko foofu jàpp nga ne ñaar ñu am neen réeroo non am na réeroo bu ci nekk parce que tamit nit ki mun na la nekk may la may la benn mhm. bañ bañal la leneen mun mhm. na ko may lii bañal ko leneen mhm. ba tax na parce que man président Macky Sall sax man ci xolam jàpp ma ne euh, réeroo ci xol amul amul ci diggante moom président Abdoulaye Wade waaye dama jàpp ne entourage bi nga xam ne moo nekk ci moom parce que lu ko sonal yëpp mooy Benno Bokk Yaakaar di fekkoon APR kese la mu xam ne moom moo ko créé waaye depuis bañ àndee ba léegi ñoom fas yéene wuñ tas mm-hmm. parce que PS si boppam seey na AFP si boppam mhm. seey na si parce que bennoo boobu man dama jàppoon ne su élection 2019 bi passé rek bennoo bi day dem parti bu nekk mhm. amoon nga ambition ba ngay créer parti mooy lan mhm. da nga créer parti ngir ëllëg nga jiite réew mi waaye ñoom nu ma gisee ni ñoom si loolu lañ nar a rek ci bennoo ci bennoo ba àddina tukki kon su yàggee rek kon parti dootu am Sénégal kon moo lay wane président Macky Sall ci xolam mais coalition aussi permettre dafa am fu mu toll mm-hmm. am fu mu toll ba dem sóobu dugg ci beneen parti mm-hmm. donc est-ce que tey ñoom gis suñu taseen non Benno Bokk Yaakaar dugutul coalition mm-hmm. parti la dugut man tuddiwuma ko coalition parti la parce que lan moo tax parce que coalition

15 kon moo lay ne président Macky Sall bu nekk yëpp. coalition benn bokk yaakaar boobu. ñoo ko ñoo ko solal. ñoo ko wër di ko dugal ci ay situation yoo xam ne yu doy war la parce que ci biir coalition yoo xam ne dafa am yoo xam ne du parti. am na parti yoo xam ne comme ALD ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. parti yoo xam ne duñ mës a jël nguur. mbaa duñ mës a am sa benn député mbaa ñaari député tant que ñoo coalition. moo toujours ñoom ñooy gën a ëpp ñooy gën a taxaw pour parité di am mhm. pour ñu naan nañ rekkale sàngam nañ rekkale diw sàngam nañ rekkale diw sàngam kii mënut a dem élection kee mënta dem élection pour parrainage bi pour parrainage bi mhm. am mhm. ay parti yoo xam ne ñu ngi ci biir bennoo bi mënuñoo dem fenn mënuñoo yegg dem ci nguur li ñuy def rek bokk ci am ay poste ministre ay poste député ak leneen ak leneen ci loolu lañ bëgg a dëkk te man maa ngi ñaan président Macky Sall ginnaaw def na ñaari mandat mandat Abdoulaye Wade bëgg mu ànd ak see moom jàppale ko ci moom fexe rakkam nu mu ñëwee ci réew mi ànd ak moom képp ëllëg ku fi mënti nekk tamit te maa ngi ñaan sax du fekkee laaju moom troisième mandat ànduma ci nag waaye su ci laaju tamit na jàppale rakkam jooju nga xam ne mooy président mm-hmm. euh, Euh, mooy ki nga xam ne mooy Karim waa Wade mhm. ëllëg mën na yóbbu réew mi foo xam ne te maa ngi lancé message si mhm. kilifa diine yi si Sénégal yëpp mhm. mais danga jàpp ne Macky Sall mandat am bi bu jeexee dafay dem waa man si lu ma jàpp parce que moo waxoon ne man ci seetaan naa ay filmam euh, ay vidéo am yoo xam ne waxoon na ne bii mooy dernier mandat seetaan naa ay vidéo yoo xam ne euh, Mimi Touré moo ko def mu ne bii mooy dernier mandat bu président Macky Sall. Mhm. Ismaïla Madior Fall ak ñeneen ak ñeneen. kon doon na gis nañ ne tey ku mel ni Bamba Fall ak ku mel ni Mame Mbaye Niang mhm. ak ñeneen ak ñeneen di génn ci parti bi ñu ne président Macky Sall am na droit def beneen mandat. waaw ñooñu moom laa la moo Bokk Yaakaar boobu moo yóbbu Bamba Fall foofu. Mhm. parce que Bamba Fall du APR. parce que Bamba Fall amul capacité gérer. yaa ngi dégg mbaa ñu am mais yàgg na ci APR. te ku mel noonu waaw Mame Mbaye Niang Mame mu génn def sortie parce que moom. si boppam amut amut amut amut amut euh, amul mbooloo moo xam ne mu ngi ci ginnaaw mbaa base politique amul ko ci Sénégal mm-hmm. fan nga mën a taxaw ne Mame Mbaye Niang base am ngi nii mm-hmm. mbaa am na nit mbaa am na mbooloo lu may mën a def rek mooy toujours lu ñuy wax ne bëkk néeg buuse mm-hmm. saam bi jar na ko toujours daf naan su ma su ma su ma buuse bi lu mu saam jar na ko parce que bëkk néeg nga surga nga kon kooku dafa am ñi nga xam ne soo ko seetloo ñu am doole bokk ci ki nga xam ne nga xam ne ëllëg mën nañu nekk daa génn ci APR mbaa génn ci Benno mhm. mosoo ci dégg ku naan di wax naan di taxaw ci télé yi naan troisième mandat dafa war a am mel ni ku mel ne Aly Ngouille Ndiaye mosoo ko dégg bu koy wax mhm. du fekkee am na bëgg na ko sax mhm. waxu ci xolam ku mel ni Lamine euh, kii kii nu mu tudd Amadou Ba mosoo dégg muy taxaw naan ay troisième mandat ay patati ay patata ku mel ni keneen ak keneen waaye ku mel ni ñoom euh, Farba Ngom ñoom Amadou euh, ñoom ñoom ñoom Mame Mbaye ak ñeneen ñi nga xam ne amuñ benn base politique. Mhm. ñooñu il faut ñu taxaw ne troisième mandat dafa war a parce que ñoom xam nañ ne jeexal nañ ci euh, ci langue politique yi. Mhm. ñoom xam nañ ne Sénégal war nañ leen ginnaaw kon il faut ñu fexe troisième mandat am ñu mën fi toogaat yeneen cinq ans mën a préparer waat jàpp nga ne Sénégal war na leen ginnaaw waaye tamit tey Karim Wade tey suñ ko bàyyee mu ñëwaat ci réew mi tey.

te soo ko seetloo est que réellement bañoon na. aussi non bañoon na ndax tamit góor mm-hmm. gëm naa ne soo bañee ñu lay génnee prison aussi ngay signé. Mm-hmm. ku dem ba signé nangu na. non non dafa naa ji prison moom. du mm-hmm. fekkee dañ dafay fay génnee. alaakulli Alioune loo bañ bañ ba da ngay génne. da ngay génn par force par da ngay doo fa fanaan. parce que luñ signé la mënatoo fa fanaan parce soo fa fanaanee yeneen jiyee mën na fa am. mais moom mooy signé. moom mooy signé non il faut su bañoon signé duñ ko génne. non force yaa ngi boobu pression yi am na yeneen ndigal yoo xam ne jógee na ci feneen ak feneen pour mu signé. Mhm. parce ñun xam nañ lu xew ci réew mi lañ dëkk. Mhm. parce dañ ne ko yaa ngi dégg nga génn parce xëccoo parce que génn kaso. nekk nit boo xam xam naa ne daal Karim Wade en tout cas mbébétam mooy yore Sénégal defar Sénégal waaye xam naa ne man ci suma gis-gis bu gàtt lam nekkee foofu ak lu mu nekkoon fii ci kaso bi c'est la même chose parce que mënta mënta yónnee manta ñëw te bëgg naa ñëw ci réew mi te xam naa ni ragal ko moo tax ñu bañ ko bàyyi ci réew mi parce que Karim Wade may ci ah, waat suñ ko bàyyi woon ci mu ngi fii di def lu ne mm-hmm. su suñuy ragal kay jàpp naa ni mm-hmm. ñu Sonko kenn tëju ko jàpp naa ne ñu ragal ko tey mm-hmm. moo gën a euh, non loolu def nañ ko benn fee pour ragal pour ragal Karim Wade xam ne nanguwul non non parce que Sonko moo mujj Karim Wade ba may am jafe-jafe di génn réew mi boobu Sonko feeñagul nii amay ameegul nii doole parce que boobu jamono yooyu Karim moo fi nekk parce que tey même bu ñëwee tamit dem ak Ousmane compétition non Ousmane Sonko Ousmane Sonko élection législative yi dañ ko xañ élection yi te fu ñu jëm nii ni ñuy ni ñuy buuru mandaate nii mooy tamit mën nañ ko recalé ci élection présidentielle 2024 dama ne la kon moo lay wane am na candidat yoo xam ne. nit moom siy dem élection moom mbaa ngay dem match. équipe bi nga xam ne mbaa ñu tirage match boo xam ne da nga war a fubal ci tournoi. équipe bi nga a ragal da nga def ay pexe ba nga xam ne. su mënee absenté sax mu absenté mbaa joueur bu man a absenté mu absenté waaye lu ma mën a xam mooy. réew mi daal Karim Meïssa Wade moo gën ci réew mi. te mooy suma candidat 2024 maa ngi woo Sénégal yi yëpp ñu gunge Karim Wade et yaa ngi dégg loolu moom mouvement la boo xam ne mu tudd GMS GMDS yàgg na fi maa ko créé. waaye dama ci yokku gunge Karim Wade en 2024 ñu fas yéene président Macky Sall lépp lu may wax ci moom. na bàyyi xelam xam ne ñi nga am na ñoo xam ne ñu ngi ci pale bi. dañ koy dugal ci loo xam ne euh, rafetul. na def le tout parce que Ablaye Wade mag la koo xam ne dund na lu mat juróom-ñeent fukki at juróom. Mm-hmm. yar ko. indi ko ci réew mi dugal ko Petrosen indi ko ba président assemblée nationale yaa ngi dégg euh, boole ko ci état ba ñu ñëw ñëpp xam ko. Mhm. kon suñ demee diggante bi lu mu ñaaw ñaaw ak lu mu réeroo réeroo am ginnaaw fi ne nag wax dëgg yàlla ñu ngi dem ci euh, ci ci daw nañ ba tourné ba nga xam ne ñu ngi war a ñu fañ fañ déparé woon. na fexe jubóog ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade defal ko lu mu bëgg a ah président Abdoulaye Wade ñaanal ko mu wax lu mu bëgg mu saafara loolu mooy Karim Wade ñëw ci réew xam mm-hmm. na mm-hmm. euh, ne nga ne Ousmane Sonko dañu ko bëgg a xañ mm-hmm. mi élection législative yi parce <laughs> lan moo tax mënuñu basé ci loolu loolu ne Ousmane Sonko dañ ko ko xañ parce que ñoom ñoo confectionné liste. Uh-huh. waaye Yewwi Askan Wi liste bi am problème liste bi munta jàll. Mm-hmm. donc foofu man mënu ma considérer personnellement que dañ ko ko xañ. Mm-hmm. donc lan moo tax yow nga jàpp ne 2024. dañ ko non man lii xañ daal lu lay niru lii xañ. Mm-hmm. parce que dara dana la xañ mu am lu mu lay xet mu lay jox. lii xañ daal booy jàpp ne lii xañ dara day fekk am lu mu def waaw waaw lii lii xañ moom. dama gis ne commencé waat nañu wax problème wu aji saat ak Ousmane Sonko. am na mu responsable APR yoo xam ne ñu ngi génne ne Ousmane Sonko mënut a nekk candidat tant que projet amul Ousmane Sonko mun a nekk candidat parce que dafa dafa nekk ci contrôle judiciaire kon yooyu ginnaaw yooyu mi ngi am information waay wax kay très bien xam nga loolu mi ngi commencé xeeñ mhm. kon man tamit dama koy njortu parce que ñoom tamit ñoom seen biir rek mhm. ñoom njort nañ loolu warta mën a nekk man damay njort loolu kon damay wax ne rek situation bi nekk critique bi yëpp mooy liy dimbale président Macky Sall mooy mu jubóog ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade parce que situation bi ëllëg dana toll foo xam ne moom rek moo ko ci mën a génnee man leer na ma ne moom rek moo ko ci mën a génnee parce que ñu may déglu nii ñëpp amuñu ko njëriñ amuñ base politique te su ëllëgee da wéet dañ koy wan ginnaaw dem ci leneen kon man lu may wax rek mooy na dem jubóog ki nga xam ne doom ak papa war nañoo mën a toog jubóog moom mu jël otoom dem kër président Abdoulaye Wade waxtaan ñoo parce que tamit suñ ko seetloo kilifa yi si diine si Sénégal mébét nañ ko xalifa Omeran bi soo ko seetloo fan yi ci boppam mu ngi doon wax ne day inauguré jumaa invité leen ci ñoom ñaar xalif euh, général des mourides def na ci liggéey liggéey bu am solo dañ koy ñaanal mu wér xalif euh, bu Medina Baye Niass ak ñeneen ak ñeneen mhm. ñi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yëpp xalifa yëpp man xam naa ne loolu mëbët boobu bëgg nañ ko parce que tamit woy wu rafet moo gën woy wu ñaaw mhm. ñu ne président Abdoulaye Macky Sall def na fi def na fi ñaari mandat ci mhm. biir ñaari mandat yëpp jubawut ak ki nga xam ne mooy président Ablaye Wade mbaa am na lu naqari président Ablaye Wade loo xam ne mun na ko dindi te mu war ko mën a dindi wax dëgg yàlla loolu wax dëgg yàlla man de wax dëgg yàlla maa ngi ñaan Sénégal yëpp ñu fese ni jublu ci loolu eh. ñu dox ci ña ca war a dox dox ci ña ca war a wax wax ci élection législative yi passé euh, PDS mu ngi woon ci biir wàllu te wàllu ku ko dégg jàpp PDS mooy wàllu mm-hmm. gis nañ ñu def benn coalition ñu naan intercoalition entre yeewi ak yeewi askan wi mm-hmm. muy wallu ak yeewi ñoom ñoo àndoon dem xeexi pour élection législative mais depuis ba élection yi jeexee ba léegi coow assemblée nationale ku nekk ngi xëccoo pour doon député mm-hmm. pour pour doon président de l' assemblée nationale ku ci mel ni Ahmed Aïdara dégg nañ ci ay kàddoom ku mel ne ab Cheikh Abdou Bara Dolly aussi dégg nañ ci ay kàddoom mu ne mbir mi tuubaa la war a génnee te bu génnee Touba donc moom wax na ko mun a doon. Mm-hmm. ñu lay laaj. sa non xam nga Touba tamit dëgg yàlla tamit moom waxi sëñ Bara Dolly moom waxam duma ci sori. parce que indi wax yoo xam ne Serigne Bara Dolly mm-hmm. aussi nekkul n'importe qui parce nekkoon na député aussi ci réew mi non député ba may nekk député ci réew mi mm-hmm. ni ñu ko investir woon Touba noonu lañu ma investir woon man sa département Kaolack yàlla def coalition lañ demee woon mii coalition boo xam ne muy wëttu Sénégal. Mhm. bi nga xam ne ab président Ablaye Wade moo ko jiite woon. Mhm. Pape Diop ne si. Mhm. ñu investir waa PDS investir ko foofu nag xam ne tamit président coalition ba taxoon muy gagné mooy président Ablaye Wade. président Pape Diop tamit amoon na ci quatre députés la taxoon mu am ko mooy président Ablaye Wade man ci boobu maa ngi faral ci ki mooy Pape Diop. parce que dëgg dañ wax rek. ñaareel bi mooy wax boobu muy wax noonu. waxi intoxication la parce que mënoo toog rek ne président assemblée nationale Touba la war a génn loolu mu ngi indi. benn benn polémique boo xam ne te loolu sax sëriñ si si boppam ña nekk Touba. Mhm. duñ ci duñ duñ ko ëyu ci loolu parce que réew mi. waaw mais am na euh, sañ-sañ aussi laaj. waaw xaaral ma wax la waaye mënoon na laaj rek waaye bu mu wax ne. Mhm. président assemblée nationale Touba la war a génn parce que mhm. Touba. Sénégal président assemblée national lay wax. waxuñ président conseil rural bu mbaa commune. Touba. kon yooyu wax yooyu waxi intoxication ak waxi. indi jaboli jaboli jaboli jaboli jaboli ni ko tubaab di waxee. Ah, jabolisation jabolisation loolu la loolu lay indi parce que li tax parce que loolu sax du argument. Mhm. parce que ku jàng sax du wax loolu. Mhm. mais yow lan moo tax tey parce que moom si boppam. lan moo tax nga jàpp ne Cheikh Abdou Bara Dolly wawul mën a nekk. waaw benn lu may xëccu parce que nit ki da nga war a xam sa bopp. Mhm. parce que un président assemblée nationale. dafa war a taxawee comme un président de la république. parce que président assemblée nationale dañ ne ci lu ma jàng ci lu mu gàtt. hein, en cas d'absence mmh. ou décès, hein, c'est le président de l'Assemblée nationale qui remplace le président de la République. nationale moom mooy. remplace le président te président te lu ne moo mën a xew. Mhm. kon loolu yëpp dañ ko prévoir. que mhm. président de la République su fekkee dafa feebar mbaa mu mhm. tukki mbaa mu def leneen. ñun ut ku koy remplacer président assemblée nationale la jël. te ci boobaa yow da nga jàpp Cheikh Abdou Bara Dolly mu ne non tamit yow koo xam ne mënta bind. ci français su fekkee am na xam bi tamit. projet de loi nga war a assister diriger plénière loolu wax dëgg yàlla mënu ko tey jii tey suñ ko defoon tey mu nekk président assemblée nationale. Mhm. ëllëg président bi tukki am absent ñu war ko remplacer pour une durée de six mois. Mhm. moom kooku attan na pour jiite réew mi. ñaareel bi tamit pour organiser ay élections wax dëgg yàlla loolu attanu ko kon dafa war a yem place am waaye soo gisee muy def loolu moom amee ay dara amee ay dara sax mun nañu wax ne njàngam waaye ba léegi sax amul capacité ak expérience pour mën a gérer loolu. Mhm. soo gisee président Ablaye Wade. def choix si Lamine Thiam parce que am na nombre de député parce que cotation bu mu am cota bu mu am wax dëgg yàlla am na droit pour choisir un candidat ci biir Yewwi Wallu te pré. Euh, euh, euh, Cheikh Abdou Bara Dolly moom moo la doyul moo la neexul wala. non du question loolu wala su Ablaye Wade nga bëgg a. non du su Ablaye Wade de waaye dafa tànn koo xam ne au moins képp ku ko dégg dana xam ne kii. Mhm. mbër la mu ngi mel ni tey sa laamu ja tey soo waxoon ne tey Balla Gaye war na mën a nekk roi des arènes nit ñi dañu la la waaw ne. yaawu jàll su demee tey sa làmb ja war na ma a nekk roi des arènes mënul nekk. Mhm. parce que sëñ Bara Dolly ah mënta nekk attunu loolu waaye soo gisee muy wax loolu waxi politicien lay def parce que mhm. dafa bëgg a bokk ci vice les huit président euh, présidents assemblée nationale soo gisee mu imposé loolu pour négociation lay ut moo amee intérêt yow loolu ñu te ñoom dañu war a xam ne moom ba Ablaye Wade choisir Lamine am dafa waroon a ànd ci loolu parce que mhm. ab président moo ko def lu mu doon. parce que li tax su moom moom ci boppam. su demoon élection législative benn député du ko am naataange askan wi xoolal lu ñu am ci voix te amuñ benn député moom mënu ko am kon moom dafa war a yem lu sinon danañ ko wax lañ waxoon golo ba mu gedd gerte ga wolof Njaay dafa waxoon golo loo ko mën a wax ba mu gedd gerte ga rek wax nga ko lu rëy kon moom na it na toog ci place am ñu ànd liggéey coalition bi ñu bañ a yàqu bañ a tasaaroo ñu fas yéene liggéey former un assemblée générale boo xam ne bu dëgër la suñ demee ba assemblée bi taxaw su boobaa kenn ku nekk mën nga samp sa ndënd ci élection 2024 yi préparer li nga xam ne mooy euh, euh, élection yi parce que 6 mois 1 an 6 mois moo ci des mbaa 1 mois 1 an moo ci des mm-hmm. ñu préparer élection yooyu noonu fas yéene kenn ku nekk parce que moom am na mbër. Mhm. parce que moom tey jii suñu demoon élection 2024. Mhm. Karim Wade Meïssa Wade lay seeti. Ah, mbaa mu seeti Ousmane Sonko est ce que dina ànd ak moom parce que kuy xëcc aussi. Mhm. nekk président de l' assemblée nationale est ce que après loolu di nga nekk di topp ci ginnaaw ko am den du ñëw aussi. non non loolu yëpp ay système la. xoolal loolu yëpp ay xoolal ay coup baa lay def <laughs> parce que ñëpp xam nañ ne yow miy rey sax war nga xam nga ne Abdou Bara Dolly mënul nekk président assemblée nationale waaye ci ay négociation poste la nekk. te nit ñi bañ a ànd ak ñun. ak coalition bi da leen da di leen kii changement lañ bëggoon ci réew mi. Mhm. du question ay intérêt personnel. kon ñoom ñi ñi am na noo xam ne suñ ko defee rek askan wi danañ commencé douter. Mhm. di commencé wane ginnaaw parce que ñun dañ am ci ñun yaakaar. Mhm. ñu bëggoon changement boo xam ne bu rafet la waaye ñoom li ñuy wax ak li ñuy li ñuy li ñuy doxalee du noonu. parce que si changement boobu nga wax ci ci ci la ñu jëm. ndax euh, gis nañ ne tey euh, Karim Meïssa Wade. ci ay information yu ñu jot tey. mooy ba ñuy euh, taxawal coalition bu mel ni yeewi askan wi ak wallu moom dafa bokkoon si ñoo xamante ne d'accordul woon ndax dafa jàpp ne lool bu ñu ko defee pour dooleel Ousmane Sonko la. waaw loolu man ci information yu ma njëkkoon a jot président Abdoulaye Wade moo d'accord wutoon mhm. waaye président Karim Meïssa Wade moom dafa d'accord woon mhm. li tax li ma lay wax nii tey. li ma ko ci presse waaw loolu tey gaa yi ñooy def noonu loolu. Mhm. yooyu yëpp politique la. Mhm. di nga politique dafa am ay galgal yoo xam ne mhm. yu doy waar moo ci nekk. <laughs> parce que pré galgal nga woowee loolu. waaw waaw loolu ay galgal politique la ci mhm. jamono yi ñu toll soo ko gisee ñuy def loolu yëpp. pour disperser li nga xam ne mooy coalition wallul moo tax. parce que jamono yooyu noonu Karim Wade moog papaam di ñu réeroo. te Karim Wade papaam dafa am yéene. du question am yéene rek doomam bëgg a falu de. Mhm. waaye Ablaye Wade du nitu caaxaan. Mhm. Ablaye Wade dafa bëgg Sénégal. Mhm. te xam na ne doomam jooju noonu. du question doom bu ñu wax ne rek doomu Ablaye Wade dafa bëgg a jël indi doom waaye nag. Karim Wade dañ bi ndax loolu moom def waxoon nañ ci ba pare. nañu des ci question bi rek. maam lan moo indi tey ñu dem ba toog tey. di wax ne ku mel ni Karim Wade àndul woon tey ci coalition mel noonu parce que dafay jàpp ne bu ñu ko defee. c'est pour jox Ousmane kan moo ñan ñoo wax loolu tey sama am na samay naataango source a yu génne information waaw loolu ñu ko wax soo ko seetloo mhm. dawuñ ay PDS mhm. dawuñ ay nitu Karim Wade mhm. dawuñ ñoo xam ne ci yaa ngi dégg ci wëllu lañ bokk dawul amul kenn kiy génn di wax loolu mbaa soo ko seetloo tamit dawul ñoo xam ne tamit ci Ousmane Sonko lañu bokk soo ko seetloo ñeneen lay doon ñoo xam ne ci beneen camp lañ bokk d'accord changement politique euh, nu réew mi di fonctionner Euh, am na ñoo xamante ne neexu leen ba ñu ne dañuy def changement changer li fi ne. Mm-hmm. am na ñu toogoon ne cumul de poste. Mm-hmm. dañ koy xeex dindi ko maanaam doo nekk maire nekk député en même temps. Mm-hmm. gis nañ ne ñu ci bari nekk nañ maire nekk nañ député ba tey dégguñ leen ñu wax lu leex ci cumul de poste bi. yow ban position nga taxawee. man position gu ma ci am dañ waxoon dañ ko war a respecté. parce que dafa am lu ñu waxoon. am na ñoo xam ne mosuñoo taxaw ci benn commune dafa politique. seen wax ak seen kàddu moo fa dem. mbaa ñu dégg ko ñi ñi loolu doyloo leen. Mhm. ñu dem élection watal leen. lu mel ni Pape Diop. dafa wane ne woon opposition la moo tax ñi ñu watal ko. Mhm. mën a am benn député. Mhm. ak keneen ak keneen. lu mel ni ñeneen ak ñeneen ñii tamit dañ war a respecté lu mel ni si Barthélémy Dias Ousmane Sonko ak ku mën doon tamit. war nga conditions yi ñu waxoon. parce que tamit loolu moo taxoon. parce que suy campagne. Mhm. da ngay wax loo xam ne nit ñi dinañ leen mën a gëm. Mhm. mën a gis si yow loo xam ne lu leen doy la. Mhm. pour ñu mën a woteel parce que campagne su koy wax loolu mooy tax sooy dem ci askan yi. dafa doo dem rek xool leen rek ñib si. da ngay dem waxtaan ak ñoom ba convaincre leen lañ leen convaincre woon. loolu dañ ci war a ànd fas yéene cumul de fonction yi ñu appliqué ko ñi nga xam ne ay député lañ. nekk maire ñu démissionné jox ñi ne ñu continuer liggéey parce que loolu lañu waxante woon man loolu moom dama ci d'accord parce que nit lépp loo wax ci politique mhm. waaye lii moo waral rek heure bu heure bu politicien waxee ñu ne ah kii waxi kàcc lay wax mhm. parce que tey mën na ci wax génnaat yi te loolu mhm. wax dëgg yàlla dañ ko war a jombale suñu bopp di rappeler mbokk internet yéen a ngi seetaan ku ñuy wax euh, Serigne Momar Soxna nekk président du grand mouvement pour le développement du Sénégal gunge Karim Wade 2024 question d'actualité moo ñu rattrapé li xew Kédougou ci gone gu ñuy wax euh, te mu faatu ñu naan ko Mamy Doura Diallo te mu doon am doom mu mujj moom ak doom ji yëpp muccuñu ñu décédé ba depuis boobu coow li bari na ba am na ñu ne problème mu médecin yi la problème mu santé wu Sénégal moo feebar ban jàngat nga def ci lu mel. waaw lu nañ ne loolu moom amoon na. onze bébé Tiwaawoon yi amoon na li amoon Linguère amoon na li amoon Louga boobu ba léegi même sos chaque jour même décision yi mais problème bi ba léegi ça persiste waaw xam nga jamono ji soo ko seetloo comme lu ma wax rek dañ topp politique bi ba mu ëpp jubluwuñ ci li nga xam ne mooy feebaru gaj réew mi parce que politique soo ko seetloo bañ jógee ci élection législative ñu fi ne ñu ngi commencé waat politique ñu ne dañuy war a taxawal STC ak euh, au conseil des collectivités locales uh-huh. dem joge nañ ci loolu ñu ne fi ne le 12 la ñuy mm-hmm. taxawal assemblée nationale mm-hmm. ñu ngi wax près de 2024 kon moo lay wan ne Sénégal daf dañ ko war a tabaxaat mm-hmm. ci wàllu nan lañ koy mën a yoree ci réew mi loolu nag xam nga lan moo ñu ci mën a dimbale man dama jàpp ne kilifa diine yi ci Sénégal nga xam ne kenn ku nekk rek da nga jiit da nga jiite mbooloo moo xam ne ci tarixa ñoom ñoo war a jël seen responsabilité ba yi coow yu bëree bëri su amee ñoom ñoo ci war a xar seen tànk tubéy parce que problème mu santé bi lu am noonu lu euh, kéedu amoon na fi Louga kooku soxla la sant sax sama bokk la amoon euh, yaa ngi fan yi rek am na bu am Linguère mhm. am na feneen ak feneen mhm. da ngay dem fii ni ci àll bi fii ñun soo mhm. demee lu mel ni Latmingué commune de Latmingué ah presque yaa ngi dégg hôpital suñ naan hôpital Latmingué moo tax sax la ñuy wax te 84 la. Mhm. soo ko seetloo da ngay gis génnee Latmingué. Mhm. nit war a am doom kër Ali Basit. Mhm. mbaa ci kër mbaa feneen ak feneen. Ah, ci digg àll bi rang-rang boo xam ne soo fa dugalee oto oto sax mënu fa dugg. kooku tey supposons nit koo xam ne da nga koy rawale benn jigéen boo xam ne mu ngi waaj am doom nga war ko rawale nga xam ne nga war ko mën a yóbbu ci euh, euh, ci case de santé bi. mbaa nga war ko yóbbu hôpital mag. da nga def 2 heures de temps mbaa yoo xam ne mbaa da nga fanaanaat ba bët ko ci sereen war ko indi lan ménge mbaa nga indi ko foo xam ne fu jege lan ménge la oto mën la fa jaar yóbbu xam nga yooyu yëpp ay risque la te war dëgg yàlla Sénégal fi ñuy waxee pétrole baa ngi bëri gaz baa fi surxon baa fi fer baa fi ay milliards yu milliards ñuy def te euh, euh, kii mu nu mu tudd euh, terre boo xam ne plus de sept cent mille milliards la ci biir Dakar kon war dëgg yàlla war nañ gëstu àll bi ba nga xam ne monde rural ba nga xam ne seen paj dana mën a yomb suñ bëggee hôpital dem mën a dem hôpital yoon yi baax ñu mën a dem lépp lu xew ci tàng-tàngee ñu mën ko gérer waaye loolu nag dafa am jigéen même soo demee ci saalum àll saalum bi am na diggante yoo xam ne dangay gis ku ku ku fekk ku ku ku ku nekk ci eh, wàllu jigéen lu mat 7 mois 8 mois du mës sa dem sax si si si si dem visit def li nga xam ne moom nga war a def si hôpital yi parce que li tax fa ngay dem ci hôpital ba nga war a dem dana mat plus de 22 kilomètres 23 kilomètres te doo am ambulance bu la yóbbu mbaa doo am benn Euh, benn mooy boo xam ne bu la yóbbu kon euh, responsable politique yi ci réew war dëgg yàlla war nañu dem di di rendre compte li nga xam ne mooy état Sénégal mbaa président de la surtout ñi nga xam ne moom lañu nommé ay ambassadeur itinérant ay conseil technique mhm. ay député yooyu dañ war a wàcc di dem ci bi nga xam ne fa sa penc ndaw réew ma ak ci mhm. président eh, ki nga xam ne mooy jiite réew mi sa jamono yooyu mhm. conseil bi ñu la fal ah conseil auprès du président de la république gis ñoo xam ne ñu ci àll bi lañ dëkk waaye duñ wax lenn li nga xam ne mooy nguur li nga xam ne mooy situation yu am waaye àll bi mhm. da gis ay situation yoo xam ne yu catastrophe la mhm. parce que loolu am man lu ma ciy wax rek mooy Sénégal war na dépasser jigéen ci waaye mënoo toog trois mois mbaa 2 mois ci Sénégal te déggoo ñu ne kii daf loon am doom mbaa daf loon am kii am loru loru seeg yooyu noonu mm-hmm. wax dëgg yàlla loolu métti na ci Sénégal mm-hmm. loolu moom message bu leer la di euh, jaale famille Doura jàlloo di wax ne mbir mi nekk na mbir mu tiis mais au-delà de Doura jàlloo affaire bi aussi yamul euh, foofu rek Kédougou parce que gis nañ ko Tiwaawoon gis koo feneen ak feneen donc ñu ngi masaw ñëpp ñoo xamante ne dañu ñàkk seen bakkan ci ay euh, conditions yu mel nii di invité aussi Euh, état du Sénégal autorité yu gérer mbir yi aussi ñu xam naka la ñu war a gérer suñu système sanitaire parce que aussi c'est le moment aussi de repenser vraiment à ce système la sanitaire boo xamante ne ne deux jours trois jours nga dégg des problèmes mel noonu muy euh, ñu féetee ci wàllum paj mi ñoom it nañu xoolaat bu baax ak beeg tout ça. Mm-hmm. naka la ñu mën a gérer lool ba mun a wax ak askan wi tamit ba nit ñi xam ne aussi yenn erreur yu mel nii aussi di ñaan dootu fi am. Mm-hmm. muy information de dernière minute bu am euh, tey si suba si. Mm-hmm. muy euh, faatu bu imaam Alioune Ndao di ko jaale jullit yëpp di ko jaale ñëpp di jaale aussi ci kàddu Sénégal ñëpp ñu ngi jaale imaam Alioune ndaw di la bàyyi. sa dernier message rek tàggatoo. waaw lu may lu may tàggatoo rek may jaalee ki nga xam ne mooy imaam Alioune ndaw nga xam ne ñoo bokk benn région bi ñu dëkk mii ci Kaolack. di ko jaale xalif généraux yi ci Sénégal yëpp rawatina xalif euh, bu Medina Baye Niass muy Cheikh Maye Niass. nga xam ne fa laa bokk. Mhm. Euh, di ko jaale tamit euh, xalif général bu bu. bu Touba. mais mhm. sëñ Mountakha euh, yal na fi yàgg te wér di ko mhm. jaale jaale xalif général yëpp. Mhm. di ko jaale waa Sénégal parce que wax dëgg yàlla bay na waaram si li nga xam ne mooy ci diine ji euh, jàngale lañ ko ne juma xutba loo xam ne di yee askan wi. kon ñu ngi koy jaale àddina bi yëpp di wax ne wax dëgg yàlla Sénégal tey perte na koo xam ne mbër la ci diine ji euh, koo xam ne jiyaat rek moo moo newoon ci moom. lépp loo xam ne li diine di wax di santaane ak sariya ak sunna mu ci loon dox kon ñu ngi wax rek loolu yal na fi gëj euh, mu yem fi euh, yàlla euh, xare ko ajana loolu rek lay tëjee di gërëm tamit waa Sénégal di wax ne euh, président Macky Sall lu ma koy wax rek mooy euh, na bàyyi xelam si président lay Ablaye Wade euh, xam ne kilifaam la moom nag mooy kilifa Sénégal yëpp parce que président de la République képp koo xam ne mu ngi ci Sénégal rek moo moo la jaboote waaye na président Ablaye Wade dafa nekk ni koo xam ne mag la te wax dëgg yàlla presque am na quatre-vingt-dix ans quatre-vingt-quinze ans na waxtaan ak moom fas yéene digganteeg moom bu ci kenn jaar guddeeg bëccëg suba ngoon mu laaj ko li nga xam ne euh, mooy bëgg-bëggam ci réew mi ak li nga xam ne moo ko métti ci réew mi mu xelal ko waxal ko digal ko te yaakaar naa ne dana ci am dam te dana ci am yàlla te Sénégal yëpp danañ ci kontaan li ñu ñëpp di kontaan mooy Karim Meïssa Wade ñëwaat ci réew mi parce que doomu Sénégal la borom xam-xam la te njëriñu réew mi balaay beneen réew du ko jëriñoo wax dëgg yàlla waa Sénégal jëriñoo ko asalaamaaleykum wa rahmatulah taala Sëriñ Soxna si sa disponibilité bi nga nangu si suñu invitation bi ba li fi waxtaanee ñu jàpp ne xëy na euh, dina am njëriñ société bi ñu jàpp ne aussi lu baax rek lañ si jublu woon di tàggu mbokk internet yu ñu doon euh, seetaan yëpp fii ci Sénégal di leen wax ne yéen a ngi woon seen émission nay leer di remercier aussi suñu technicien yi di remercier aussi le grand caméraman nekkoon ci ginnaaw di góor gi ci am ñu ngi leen di jox dig daje ak beneen émission nay leer ak beneen invité